ñu koy baaxoo di def rek ak njiitub euh, njaboot gi euh, ci euh, bu ñuy dëkkmal ci rek julub tabaski ñu dem nag wutee xar ci biir loolu nag président de la république ni ko sénégalais yëpp di defee demoon na nag seeti li nga xamante ne rek mooy xar mi ngir nag waajal li nga xamante ne rek moo jëm ci wàllub feetub tabaski bi li moom la ko suñu borom taala le prophète Don doon euh, digle euh, président de la république euh, Macky Sall dafa demoon Monac d'Aldi di comme nak ñëpp nuñ koy defee dem waxaale nag ca ya foofu fi jàkkaarloog enam ci biir loolu nag jënd na fa am xar bu jar ñetti téeméeri junne ci biir nak andak soxnam ak soxnaam terminus Liberté 5 ngir xol nak xar yi ci bi minuit di wajjo jot euh, waxtaan nag ak ñi nga xamante ñooy jëndkat yeeg euh, ak jaaykat yi euh, ci nag comme ni ngeen ko gisee nii ci image yi saafonte nag ak sénégale yi nga xamante ne ñoom la fa fekk mu doon lu nga xamante ne lu am solo la nag ci nekk nu sénégalais parce que nag sénégalais lu leen bëgg rek mooy njiit yi di leen faral di nemmeeku waaye it yëg leen loolu nekk la lu nga xamante ne rek moom la suñu caméraman bi di Momar njaay bu RTS daal di fekkee ba jël ci image yooyu ñu fàttali président de la république lu mel ni baaxoo ko def ndax nag euh, jamono yi nga xamante ne rek sénégalais yi dañoo amoon jafe-jafe ca mbënd ma àndoon na ak soxnaam dem nag euh, ca ñi nga xam dañoo lor woon ca mbënd